Bienvenue sur Salam Vision. Une synthèse de l'actualité à la présentation, cher Oussafou. Le CNRA convoque depuis ce matin les pêcheurs islamiques qui gravitent dans les radios et télévisions. Et c'est une occasion d'échanger des idées et, ou des solutions idoines pour éviter des au niveau de certains médias, a déclaré le président du CNRA, Babacar Diagne. une concertation lunaire pour euh, cesser. Voilà une solution très rapide euh, qui, qui a été euh, mise sur pied hier par le ministre de l'Intérieur, Félix. Euh, Félix Nium en présence des trois teneurs de cette concertation lunaire euh, qui vont succéder à Ahmad Yadjam qui est décédé le mois de janvier dernier. Et cette commission provisoire a été installée hier au ministère de l'Intérieur. Résolue dans l'actualité nationale au plan la coalition Andegesem Osteton a décidé d'aller en grève pour réclamer leurs euh, de travail et de logement. Le syndicat national des techniciens et agriculteurs a de grève pour demander des indemnités de logement Des centaines de cantines ont été démolies hier euh, aux alentours de la CICAP Liberté 6. Ces derniers ont bien, reçu des sommations. Dans une, de, hors de chez nous, nous allons nous rendre au Bénin. L'élection présidentielle est prévue ce dimanche entre le président euh, Patrick Talon et trois candidats de l'opposition. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter des dérapages. asalaam aleykum ñu tënku si kàllaama Kocc Barma commission bi saytu mooy weer bi dem ko doon samp ginnaaw euh, fan yu amee ay coow diggante euh, ñi nga xamul lu ñu war a ñu jiite commission boobu nag xam na nag jamono ji euh, sagara ngi xëy mais mën nañu wax nag yàlla def na su ndox mu sedd démb fële ci ministère intérieur si teewaayu jëriñ bi mooy Antoine Félix Diome samp nañu benn comité provisoire boo xam ñoom ñooy saytu weer boobu jëmale ko fële dem fa ministère l'intérieur li jëm si mbirum xibaar coalition ànd gësam ñoom nag dañu fase nag euh, dem grève laaj ay ndàmpaay yoo xam ni nguur gi daf leen ko ameloon Malo Dia Thiam ak Sidé Ndiaye ñoom ñi ngi préparé grève boobu euh, beneen grève mooy syndicat national des techniciens ak agriculteurs ñu ngi si mbirum mbay mi ñu ne ñoom dañu fase nag euh, tàmbale grève bu ñetti fan boobu la ñu seen loxo jëmale ko si yenn jumtuwaay ñoom euh, li ñu ñaan euh, li ñu ñaan si gouvernement bi ñu delloo leen seen ax ak seen wareef laaj aussi yenn ndàmpaay fii ci gouvernement bi euh, fële ci Liberté 6 dañuy doxantoo xam ngeen amay kant ñu fa nekkoon dañ leen fa toj xam nag mooy autorité administrative yàgg nañ leen fa dànqaafu ñu jógee si bërëb yooyu ñu dem ba bitim réew xam nga suñu mbokku béninois yi ñoom ñi waajal seen élection présidentielle bi nga xam nag dimanche de fan benn ci weeru avril président Patrick Talon mën na jàkkaarloog euh, yeneen ñetti euh, candidat jël nañu ay motuwaay yoo xam ni mën fa euh, éviter yenn jafe-jafe yi yeneen xibaar mbokk yi leen gërëm leen sant ba ëllëg incha allah.